waa li tax ñu créé mouvement bi dañu nekk ay ndaw yàgg ci parti bi àndoon na président Macky Sall dëpp ba mu nekkee premier ministre ñoo ànd ak moom ànd ak moom régné ba mu nekk président de la république ñu seetlu ni après biñ ko falee dafa am suñuy moroomi ndaw yoo xam gisatuñ leen ci parti bi biñ leen demee seeti ñenn ñi dañ naan ah man de léegi dama marié am naa boroom kër am naa doom nekkatuma ndaw eggaguma ci femmes yi comme les conseils ñoom madame Badiane ak ñooñu ñu mag ñi xamatuñ daal fu ñu féete ñu nekk ci diggante bi bàyyeeku toog seen i kër te ñooñu 100 personnes ñoo nekk seen ginnaaw ndax ay coordinatrices de comité lan te bi ñu paree ci premier point boobu ñu amaat beneen point boo xamante ni dañu am ñu ñu gis ñoo xam bëgg nañoo ñëw APR euh, par euh, première dame bëgg nañoo ñëw APR parce que dañoo gis première dame. bëggal ko seen bopp gis li muy def premier dame neex leen ñu bëgg a ñëw mais amuñu ban porte lañ mën a jaaree ndax bokkuñu APR loolu moo waral tey ñu ne pour pourquoi pas mënuñoo xool créer benn mouvement boo xamante ne kenn du ko tendance ndax amuñu parrain amuñu parrain pour uniquement pour bañ ñu ne diw moo leen ngemb diw moo nekk seen ginnaaw ñu ne dañuy jël koo xamante ne kenn tendance ko ñu tuddee ko mouvement muy la première dame kon initiative jeune dame républicaine foofu la jógee liñ ko nar a doxalee moo di nañ defoon ba faloon ko 2012 ndax 2012 dañoo amoon ay carnet de comité ñu kenn xeebuñu benn département ñu benn commune te incha allah jeune daam noonu la bëgg a doxalaatee bëgg nañu dem commune bu nekk ñu monter fa jeune dame sama gox. bu ñu nee jeune dame sama gox maanaam kenn ku nekk ca commune ba dafay am carnet de comité boo xamante dañ koy monter comité jeune dame mu nekk 100 membres jeune dame ci benn carnet am mandataire comme ni ñu ko doon defee am commissaire ñu monter ko comité ñu bëgg wàcc ci commune yëpp département yëpp loolu bokk na ci li nga xamante ne war nañ ko mën a falaatee premier euh, président de la république bokk na tamit ci ni ñu ko mën a falaatee xool ñi nga xamante ne duggaguñ woon APR ñu xëcc leen parce que waa APR am nañ leen ba noppi de li ñuy def mooy ñu gën a renforcer seen bopp gën a liggéey réew mi nit ñi gën leen a bëgg gën leen a gëm mais xëcc ñi nga xam bëgg nañoo ñëw te amuñu fuñ jaar beneen bi aussi moo di bëgg nañoo wàcc ci social bi ndax ku ne Marème fay Sall ne social kon bu ñu wàccee ci social bokk na ci suñu programme waa jeune dame instant bii nii cinq départements yi ñu ngi ci ndax mouvement bi c'est national yàlla dafa def na dafa judd rek am tour macha allah comme APR 2012 ni mu ñëwee woon rek am tour ndax euh, mën naa ni am nañ deux groupes de WhatsApp yoo xam dañoo fees dell te am na membre yoo xam ne amuñu ay WhatsApp kon tey jii ma jeune dame mën nañu daal vraiment xamuñu sax exact ñaata ndax bari ndax benn groupe bi muy groupe WhatsApp numéro 1 bi ñu ngi ko créé ci deux jours mu fees dell muy def 256 membres ñu ubbi groupe whatsapp 2 mu feesaat dell am ñoo xam ne nee na ñoom duñu utiliser whatsapp kon membres yi macha allah fi mu toll daal dal na suñu xel. waaw fond moom dañ koy commencé suñu bopp rek. fond moom dañ koy commencé ndax li ñu sol ñoo ko solo suñu bopp salle bi ñoo ko fayal suñu bopp dañuy commencé suñu bopp ndax nag am na lu ñu defoon ba faloon président. waaw situation bañ jaaroon ba ba faloon ko noonu lañ ko premier tour bii moo ñu gën a ñor nag incha allah ndax bëgguñu dem deuxième. amul sama carte jeune sama carte. jeune dame amul sama carte carte comme jeune dame amul sama carte jeune dame républicaine APR dong la ay jigéen lañu monté comité laa wax monte comité comité c'est-à-dire cent personnes yu valable pour nekk ay membres jeune dame ñu joxe xaalis de mais carnet de comité comme yooyu 2012 ni ñu ko falee woon cent personnes ñu xam ñii mooy comité booy organiser yow ñooñu nga diriger yow président comité ba